a bàyyi xel ci Sénégal gars yi ngeen partage vidéo yi bu baax baax a baax a baax waa temps yi nag ku nekk gis na Sénégal ah, coow li comme niñ koy waxee chaque jour rek xam nga chaque jour ak liy xew ak coow liy xew ñu war ci di def jàngat di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax ñun ay borom xel lañ te yàlla borom xel yi lay waxal Sénégal nag dafa nekk réew boo xam ne ah, Sénégalais bi dafa gëm ne dafa am ñu moom réew mi ak ñu moomul réew mi am ñu war a wax ci réew mi ak ñu warul wax ci réew mi Sénégal képp kuy doomu Sénégal ak fépp foo mënti nekk soo gisee lu la naqari ci Sénégal am nga droit taxaw riposte wax lan moo ci sa xalaat ak wax li la naqadi ci réew mi loolu nag moo tax saa su nekk rek xam nga ñuy génn di def live di wax ngir sénégalais yi gën ñoo mën a comprendre bu baax a baax a baax a baax sama gars yi nag xam nga ñun ay sénégalais lañ ñu ngi ci facebook bi ñu ngi ci internet bi fu nekk di wax gu guddeeg bëccëg pour sénégalais yeewu wax jii ñuy wax nag xam nga war nañ ko continuer di fësal pour sénégalais yëpp mën cee jot billaay wallaay tallaay parce que lu am importance la gis nga sénégal sénégal katu dëgg amatu fi sénégal nitu dëgg amatu fi léegi léegi ñan ñoo des muy activistes yi ñoo des si waxkatu dëgg yi ñan ñoo des si nitu dëgg yi mooy patriotes yi nga xam ne tey jii nii ñoo taxaw di dénoncer dëgg te yàlla rek tax yéen xam ngeen ci dara bu baax parce que li la koy jàngal mooy tey ana ñu fi taxawoon daan xeex ngir senegal ana ñu fi taxawoon daan yuuxu guddeeg bëccëg ngir senegal est-ce que gisati nga leen est-ce que tegati nga leen bët noonoo non ñëpp daw nañ ñëpp xaddi nañ parce que xeex bi ñuy xeexal senegal nekkutoon seen biir xol xeex bi ñuy xeexal Sénégal nekkutoon dëgg ci ñoom kon ñun dañuy sant yàlla ñun activistes yi ñun activistes yi ah ñun patriotes yi ñun bañkat yi dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax lan moo tax ñuy sant yàlla mooy ñun ñoo desee combat bi ñun ñooy wax ci pétrole bi ñun ñooy wax ci gaz bi ñun ñooy wax ci jur zircon bi ana ñi ci laan wax ana ñi laan génn di def marche chaque ajjuma ngir suñu pétrole suñu or ak suñu gaz kenn gisatul leen kenn gisatul leen ñen ñoo fi des ak ay ngor ñen ñoo fi des ak jom mooy ñin activistes yi ñin patriotes yi may lancer message suñu mbokku internet yi activistes yi ak patriotes yi ñëpp ñi gën a booloo gën a nekk benn gën a wéyal suñu combat te ñu moytandiku espèce poli yenn xeetu politiciens yi nga xam ne nii ah ku leen gën a yées amuñ parce que nan la ñuy def ba nax askan wi rek moo leen ñor ak nan la ñuy def ba fexe seen intérêt bopp rek moo leen ñor yenn activistes yooyu ak yenn politiciens yooyu war nañ leen moytu bu baax a baax a baax am na loo xam ne daf ma naqadi ba ci kanamu yàlla loolu foog ma jàllal ko mooy lan mooy politiciens yi nga xam ne dañoo topp Ablaye Wade te Ablaye Wade mu ngi nekk magam quatre-vingt nangam màgget politiciens yooyu war a génn wax ak sénégalais yi war a génn xeex ngir sénégalais yi mën leen déglu man leen gëm waaye duñ ko def dañuy jël Ablaye Wade bëgg ko imposer bëgg a làqatu ci ginnaaw Ablaye Wade pour xeex seen xeex seen yooyu ñu leen gën a ñàkk jom ci àdduna amul gis nga ñuy làqatu ci ginnaaw laay Wade def ko armu di ko xeexee ñu leen gën a ñàkk jom amul Ablaye Wade mag la nañ ko bàyyi mu dem noppalu xam nga soo waxee ci Ablaye Wade da ngay gis ku taxaw naan la non waroo wax ci Ablaye Wade parce que mag la non non ñin waxuñ ci Ablaye wadd ñi nekk ci ginnaaw Ablaye Wade ñi nekk ci ginnaaw Ablaye Wade ñàkk jom ñàkk ngor ñàkk fulla ñàkk fayda war a taxaw xeex ngir Macky Sall lim fi nekkee mu jóge fi duñ ko def lu dul làqatu ci ginnaaw Ablaye Wade ah suñu waxee ñi naan ay hoo góor gi kañ moo fi mën d'accord Ablaye Wade moo fi mën d'accord mais yéen lan ngeen mën génn leen ci mbedd mi Ablaye Wade mag la bàyyi leen ko mu noppalu ngeen taxaw dëggal su fekkee yorul leen lu ngeen waxak ak su fekkee yorul leen loo xam ne war ngeen ko wax ak sénégalais ngeen ñëw topp ci ñi nga xam ne ñoo yor lu luñ mën a wax ak sénégalais yi bàyyi leen Ablaye Wade mu noppalu ngir yàlla ab Ablaye Wade suñu maam la Ablaye Wade sonn na. ab Ablaye Wade vingt six ans ah des oppositions di xeexal Sénégal guddeeg bëccëg chaque jour Ablaye Wade da ngay xeexal Sénégal Ablaye Wade xeexal na Sénégal ba jël retraite nañ leen ko bàyyi mu noppalu yéen ñin làqatu ci ginnaaw Ablaye Wade génn leen ngeen wax ak sénégalais yi ngeen jël seen te yéen ngeen taxaw kat wax lan mooy seen yéene ci Sénégal ak lan ngeen bëgg ci Sénégal ak fan ngeen bëgg a yóbbu Sénégal su ko defee nit ñi duñ ay dof danañ leen déglu su fekkee li ngeen di wax nit ñi d'accord nañ ci d'accord gars yi ànd ceeg yéen loolu dama ñëwoon rek pour wax ko quoi pour ñi nga xam ne xam nga ah, dañoo sonal Ablaye Wade wallaahi gars yi dañoo sonal Ablaye Wade Ablaye Wade nañ ko bàyyi mu noppalu nañ ko bàyyi mu dallu mag la ah chaque jour ñu ngi koy jagar-jagaree di ko yeb ci ay oto di ko wërloo ci senegal di ko yóbbu fu ne di ko monte fu ne ab Abdoulaye Wade sonn na bàyyi leen jàmbur mu noppalu ngeen génn yéen ñi làqatu ci gannaaw Abdoulaye Wade génn leen ngeen wax ak sénégalais yi ngeen bàyyi seen dof dof lu sénégalais yi nekkuñ ay dof sénégalais yi xam nañ seen i plan xam nañ ne amu leen argument ci ginnaaw Abdoulaye Wade ngeen di làqatu xam nga di jéem a woote Karim Wade na génn ci mbedd mi mu dëggal boppam su fekkee Karim Wade mooy seen leader na génn ci mbedd mi Karim Wade xam nga ñaata at ñaata at kanaa Karim Wade gémmiñ gi dañ koo ñaw Karim Wade kanaa dañoo ñaw gémmiñ gi kanaa bañ koy génnee prison rëbës kanaa dañoo pusowaale gémmiñ gi ñaw ko mais Karim Wade du muuma Karim Wade du xale Karim Wade ñaata at man ta ñeppi gémmiñ gi xam nga comprendre nañ ñu ne Karim Wade du ñëw Sénégal parce que état bi moo ko def lii def ko lii loolu comprendre nañ ko mais wax wax état bi mënu ko teree wax na taal Facebook am Karim Wade na taal téléphone am wax ak sénégalais yi mais topp leader boo xam ne yow yow xamoo li muy wax topp leader boo xam ne xamoo fu mu nekk topp leader boo xam ne ba nga ko ba ko Sénégal gëjee gis sama waaj nañ waxante dëgg li paa bi waxoon li benn paa wax laay bëgg a gëm paa bi daf ne ñi topp Karim Wade nii dañuy sonal rek seen bopp mais Karim Wade ak sénégalais sax dindi ko Karim Wade wàccu na senegal Karim Wade dafa ba Sénégal. Karim Wade bëggatul sax nekk ab sénégalais yéen na ngeen topp ci naan da ngeen ni fal Karim Wade bala ngeen a fal nit nit kooku noonu taxaw bëgg a falu Karim moo leen wax dafa bëgg a falu Karim waxu ko ci làmmeñam kenn déggu ko kenn gisu ko gars yi gis ngeen Sénégal xeexu intérêt yooyu moo tax Sénégal manta dem xeexi far farloo yooyu moo tax Sénégal mënta dem gis ngeen fii benn politicien moomu fi kenn amul benn politicien boo xam ne yaa moom sénégalais amul bàyyu kenn koo xam ne tamit yaa moom Sénégal ba war a toog Sénégal sa doom ñëw donnu la loolu amul Sénégal de loolu amul Sénégal su fekkee nag yéen ñu topp Karim wàdd wala yéen ñu topp Ablaye Wade Ablaye daf leen gëmloo na leen Sénégal mën nañ koo donn billaahi da leen di nax te yéen ñi ko topp da ngeen di nax seen bopp parce que Sénégal kenn du ko donn Sénégal du alalu bàyyu kenn ba kenn di ko donn nañ leen waxante dëgg te yàlla tax ñëw leen ñu xeex ngir Sénégal jugee ko ci jafejafe bii ñëw leen ñu xeex ngir Sénégal am beneen taxawaay bu mu taxawee tubaab yaa ngi roñ alalu senegal di yóbbu tubaab yaa ngi ñuy not ça fait longtemps loolu yëpp dañ ko war a xeex li ñu war a xeex senegal mën nañ cee xeex suñu giir yu dund du jeex moo gën ñuy topp ku ci nekk naan ay man fii laa far kee naan fala laa far kee naan laa far yow fi ngay far fexeel nga far ak Sénégal parce que Sénégal moo gën a soxla ku far ak moom. billaay walaay talaay Sénégal gën a soxla ku farak moom lii nag dama ko ñëwoon rek pour laayee ko biir politiciens yu ñàkk jom yi politiciens yi nga xam ne jombuñ dara lu dul gis benn paa boo xam ne quatre-vingt-six ans la am paa bu màgget ba mënatul wax ah nga topp ci ginnaawam nekk xale bu ndaw nga topp ci ginnaawam di ko sàkketoo pour sénégalais yi mën laa gëm wala sénégalais yi mën a déglu li ngay wax ah ngir lan ngir ñàkk loo wax wala amoo argument yooyu teg wala munoo wax ak sénégalais yi parce que xam nga ne yow soo taxawee di wax ak sénégalais yi duñu la déglu gis nga ñuy ab laay Wade genn wàll gi yëpp suñ taxawee di wax ak sénégalais yi kenn du leen déglu lan la ñuy wax ak sénégalais yi ay sàcc lañ ah ay luubalkatu lu réew mi lañ ah ay ñoo xam ne tey warul leen fekk warul leen woon a fekk ñuy dox ci mbedd mi kaso la leen waroon fekk ñooñu ñooñu xam nañ ne suñ taxawee di wax ak sénégalais yi sénégalais yi duñ leen déglu léegi lan la ñuy obligé def jël Ablaye Wade teg ko ci kanam fu ñu leen naan cey laay li fi def moo fi defoon pont bi moo fi defoon pont bi pour sénégalais yi mën laa bëgg yow miy wax sénégalais yi yeewu leen sénégalais yi xippi leen seen bët ngeen xool gis ngeen sénégalais yi politiciens yii ay naxaate kat lañ politiciens yi ay nit ñu bon lañ nañ leen waxante dëgg te yàlla tax waaw loolu foog ngeen xam ko foog mu leer ci seen bopp yi bu baax a baax a baax a baax waaw loolu nag dama ñëwoon rek xam nga pour wax ko gars yi bàyyi ko xel Birame Bouga Zali tey population Sénégal bi yëpp koo ci laaj Bouga Zali problème Bouga ñu ne la ah du yàgg ci kaso gi dañ koy sëlmalee askan wi nii rek parce que lu mënta ñàkk la jàpp bi ñu jàpp Bouga Zali nii du seen coobare de lu mënta ñàkk la rek parce que activistes yi ñoo tax ñu jàpp Bouga Zali parce que ba ñu yëgee mbir mi taf-taf dañoo génn xeex dénoncé ko tas ko moo tax activistes yi dañuy def liggéey bu am solo gars yi da leen respecté activistes yi da leen fonk patriotes yi te su ma ne activistes yi su ma ne patriotes yi du caagi ni ñun ñiy laay fi kese la déedéet wallaahi ñu laay fut di liggéey liggéey bu garaw ci suuf moo ëpp ñoo ëpp doole li ñuy liggéey sax ñun ñi nga xam ne dañuy toog di wax am na gars yu nekk ci suuf di bind di monter di def ay vidéo ñooñu ñooy activiste pire yi man ñooñu laa gëm na ñooy pire activiste yi parce que ñooñu liggéey bi ñuy def mu ëpp solo ñin bi ñuy def parce que xam nga lan moo ma la koy waxal tey jii ñooñu ñoo delloo ginnaaw Macky Sall ba mu jàpp Bougazeli tëj ko ci kaso gi parce que Bougazeli pere wuñu woon pour tëj ko ci kaso parce que li la koy jàngal mooy Bougazeli dañ ko jàpp grand franc délit bañ jàppee Bougazeli yóbbu ko kaso gendarmerie yóbbu ko ba ko gendarmerie yóbboo bàyyiwaat ko mu ñibbi biir këram comprendre kon naru naruñ ko woon a jàpp mais action bi nga xam ne moom la activiste topp di ko combat di ko xeex di dénoncer moo tax ñi jëliwaat Bougazelli jàpp ko tëj ko ci kaso gi taxawal ko loolu kese la waaw loolu kese tax ñi jëli Bougazelli parce que Bougazelli jàpp biñ ko jàpp jàpp ak ay moromam ah jàpp moromam yi tëj ci kaso gi bàyyi Bougazelli mu ñibbi biir këram te pourtant ak a bëri Sénégal action boobu noonu laay bëri na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ci kaso gi ah ñi nga xam ne ñoo taxoon ñi jàpp leen ak ñoom bàyyi nañ ponkal ma ñi jàpp doomu baadoolo yu tëj ci kaso gi. da ngay séq ak baadoolo ay diil nga séq ak baadoolo ay diil police ñëw jàpp jàpp jàpp kii bi jàpp baadoolo yi jàpp ki nga xam ne moo moo jiite woon mbir mi bàyyi bàyyi bàyyi patron bi mu dem ñi jël baadoolo yi tëj ci kaso gi. loolu bëri na Sénégal loolu yàgg na di am Sénégal kon Bougazelli si tànki bàyyi ko lañ la gars yi jàppoon mais yàllaa activiste yi ñoo tax ñi jàppiwaat Bougazelli yóbbu ko kaso kon ñun ñi ngi def liggéey bu am solo lii ñuy def buñ ko xeeb lii ñuy def nii dafa am solo parce que lii mosul am Sénégal ñun su ma yeboo ma ne ñun ñooy docteur ñun ñooy docteur internet bi ñun activistes yi ñun patriotes yi ñun bañkat yi ñun ñooy docteur tey gis nga Facebook ah internet internet kanaa xamu leen hôpital la hôpitalu dof yi la internet hôpitalu dof yi la xam nga lu tax ma ne la internet hôpitalu dof yi la gis nga soo taalee Facebook nga dugg ci biir internet bi noo dof dof dof bu gën a maanaam dof bu la réer dof bu la mos a réer soo duggee internet wala Facebook fekk ko fa dof yu gën a mag ci Sénégal ñu ngi ci biir Facebook ñu ngi ci biir internet moo tax ma ne la Facebook hôpitalu dof yi la Facebook hôpitalu dof yi la dof yëpp a ngi dajee ci biir Facebook bi waaye activiste yi ñooy doctor yi parce que hôpital boo dem am na ay docteur patriotes yi ak activiste yi ñooy docteur yi kuy dof-doflu wala sax ndof nga indi ko ci biir Facebook wala internet soo fekkee activiste ñii ñi réglé la danañ la faj ba nga ne cocc soo ma weddee laajal Bouga Zali wala nga laaj maître El Hadj Diouf wala nga laaj concert googu wallahi activistes yi ñooy docteurs yi waaw dof yi nag ñu ngi ci biir internet bi ñu ngi ci biir Facebook yi waaw dof bu la réer mu ngi ci biir Facebook mu ngi ci biir internet Facebook dof kese ay dof mais activistes yi moom faj rek faj rek kuy dof ñu faj la waaw gars yi partagé leen vidéo yi mu gën a yaatu waaw dof yëpp a ngi fi mais danañ continuer di leen faj bu baax a baax a baax waaw ah Bougazelli ba léegi du ma du ma arrêté ci de parce que Bougazelli kasoom gii ñu ko tëj ndeysaan baa doola dafa sonn tey jii nii kaso kaso yi nga xam ne euh, politiciens yi nga xam ne dañoo sàcc alalu réew mi luubal alalu réew mi def bàkkaar yi tool ni montagne ñoom tey suñu leen dugalee paso kaso VIP lañ leen yóbbu ci biir kaso gi kaso dafa am VIP foog Sénégal yi bàyyi ci xel kaso dafa am VIP VIP mooy fañ tëjoon Khalifa Sall tëj fa Karim Wade tëj te foofu la ñuy tëj Bougazelli bokkut ak paquetage waaw paquetage dafa am ci biir kaso gi am VIP VIP am na table à manger VIP am na am na lal VIP am na vant ventilo VIP yow kenn rek ak sa néeg ak sa tele ak say information sa jabar ah su fekkee soxla na pour ñëw fa dañuy ubbil sa jabar mu ñëw seet si la soo nammee sa waa kër dama lay wax de politiciens yi kaso yi ñu leen di tëj soo namee sa waa kër dañ lay jël teg ci oto yóbbula sa kër nga xool sa famille dóor ci say jabar ba doyal ñëwaat ñu ubbi wala nga dugg dem sa VIP loolu mooy kaso VIP mu ngi ci biir 100 mètres kaso googu te bokkut ak ay Sambour 8 Sambour 9 Sambour 10 Sambour 20 Sambour yooyu ay paquetage moo fa am waaw 300 personnes la ñuy boole ci benn néeg moo tax kaso ñoom suñ sàccee alalu Sénégal dañ leen di tëj ci kaso yu gën a neex. tëdd tëdd loo leen ci lal yu gën a neex ñiy seetaan télé di naan seen café seen jabar soxlaa seen jabar seen jabar seet si leen loolu mooy kaso VIP looloo am ci biir kaso gi moo tax suñ naan Bougazelli jàpp nañ ko tëj nañ ko gaayoo non kaso yooyu taxul ñu naan kaso jàpp yooyu ñu leen jàpp taxul ñu naan jàpp foog Sénégalais yi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax lan moo tax ñoom duñ leen dugal VIP te nag naa leen ci xamal leen lenn naa leen ci xamal lenn gis nga tey ñoom politiciens yi maanaam autorité lañ leen tuddee autorité yi suñ duggee cent am na fu ñuy jaarale gars yi di leen futti taati neen dañ leen fay jaarale su fekkee man dama dañ ma jàpp ak yàmbaa wala ñuy jàpp ma euh, dara dañ may dugal benn béréb boo xam ne dañ may futti taati neen ba ma set wecc ma juutu simmeeku wane ginnaaw tourné ñu xool ndax lan xooma lu ñuy xool daal mais tey jii su fekkee Bougazelli moo fa dugg kenn du ko futti taati neen Bougazelli du fa jaar parce que nee nañ kilifa la du fa jaar nee nañ kilifa du fa jaar waa léegi dama leen ne laaj benn affaire imaam Ndaw imaam Ndaw jaarale nañ ko fa imaam Ndaw imaam daf fay jaar sëriñ daf fay jaar taalibe daf fay jaar jàngkatu alxuraan day jaar ci béréb boobu ñuy futtee taati neen mais ñoom suñ sàccee alalu Sénégal def bàkkaar yu toll ni montagne duñ fa jaar kun sama gars yi xam ngeen ne Sénégal baa dooloo fi gën a so baa doolo rek tooñ la Sénégal nga nekk baa doolo rek ab tooñ la nga ñàkk xaalis wala nga ñàkk loo lekk rek ak tooñ la parce que yow la ñuy tëj duñ wax say mbir yow la ñuy jàpp ak ak dix mille faux billets tëj la deux ans ñu jàpp coon sekk ak conteneur faux billets tëj ko ay weer bàyyi ko mu dem ñibbi ñu jàpp Bougazelli te Bougazelli rek ñu bàyyi ko. Bougazeli sénégalais yëpp benn baat la ñuy wax Bougazeli léegi mu ñibbi këram parce que lan moo tax ñu ne la Bougazeli léegi mu ñibbi këram parce que sénégalais fàttekat la sénégalais mooy nit kuy fàtte sénégalais day fàtte démb loolu mooy problème am ñun su fekkoon duñ fàtte démb Macky Sall du nekk président Sénégal su fekkoon duñ fàtte démb Macky Sall du yeggali mbànnaam bi parce que li fi Macky Sall def yëpp ak li mu fi wax yëpp tey ak li muy doxal tey su fekkoon ñun sénégalais duñ ay fàttekat Macky Sall wàcc na réew mi mais sénégalais ab fàttekat la léegi nga gis ñu yëkkati ab coow bu bees ab coow lu bees tàq la ñuy yëkkati coow li na kur gars yi coow ko ñi ñi enchaîné waat beneen coow ñi fàtte mbiram Bougazelli bi président ñëw gracier ko bu bàyyi ko mu dem ñibbi biir këram lii mooy Sénégal waaw lii mooy Sénégal tey jii nii Bougazelli lii mu lii ko dal nii xam nga Ah, nekk na loo xam ne nii ñoom seen biir bugguñu woon mu demee noonu waaye danañ fexe ba am yeneen pexe yu ñuy jaar ba sàkketoo Sénégalais yi génneewaat ko mu dem ñibbi biir këram Bougazelli léegi mu romb leen fii dem yoonam maa leen wax lii barke rasulullaay xam nga lan moo la koy wan ana ana drogue bi ñu jàppoon port ana tubaab yi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ak sénégalais yi tubaab ya bàyyi nañ leen ñi dem ñibbi tubaab ya bàyyi nañ leen ñi dem ñibbi baa baadoolo sénégalais yaa ngi ci kaso gi ba tey jii may wax ak yow ana ana guinéen bi nga xam ne Macky Sall moo ko gracier ba juge bi taxaw mu ne kii ñu war a atte gracier nañ ko parce que du baadoolo mu nekk ay jëf yoo xam ne sénégalais yi ñu ngi ko yàgg di dund sénégalais yi ñu ngi yàgg di dund jëf jooju moo tax dañoo war a jug taxaw dëggal suñu bopp ñi xam ne nguur gi nekk fi noonu senegal la nguur gi fi nekk ennemi sénégalais bu gën a mag mooy nguuru Macky Sall loolu na ma ñëwoon rek xam nga di ko wax ci problème bu Bouga Zali bi lenn tamit bëgg naa ko wax ci président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko na ko na ko sénégalais yi bàyyi xel na ko sénégalais yi bàyyi xel xam nga man damay toujours di wax ne Ousmane Sonko nit ku set la nit ku gëm boppam la maanaam nit koo xam ne la ndeysaan alalu yàlla la alalu yàlla la man lu laay tuddee président Ousmane Sonko mu naa leen wax ne alalu yàlla la xam nga moo tax ma wax loolu est-ce que yéen yéen a ngi seetlu benn affaire attaqué Ousmane Sonko ñëpp seen taat du sedd xaw ma yéen a ngi koy képp koo xam ne jug na attaqué Ousmane Sonko bàyyi leen ko xel tuuti tuuti rek da ngay ni gis yàlla wàccee mbugal ci kawam. billahi wallaay talaay seetlu leen li may wax daf leen ci jàngat Maître El juuf Diouf Maître El Hadj Diouf dossier Ousmane Sonko teg na ko ci suuf. Maître El Hadji Diouf commencé woon na fi di attaqué président Ousmane Sonko di ko yekk lu nekk waaye la ka ci fekk du ko nettali mukk ci ci ci ci télé Maître El Hadji Diouf li ko ci fekk du ko wax mukk ci internet moom Maître El Hadji Diouf Maître El Hadji Diouf xam ngeen fan la mujjee dem na baa ngi daw ci internet bi sax dafa dem ci ay sëriñ ah ñu koy ñu koy sangat ñu koy sangat moom Maître El Hadji Diouf Maître El Hadji Diouf tuuti mu dee Maître El Hadji tuuti mu faatu vidéo baa ngi daw ci internet bi dañ ko loon sangat di ko diw ay saafara pour mu wér nee naa leen bàyyi leen président Ousmane Sonko est-ce que yéen yéen apprenti Macky Sall yi laa de yéen ñi ànd ak Macky Sall di ko xeexal guddeeg bëccëg est-ce que mos ngeen a gis seen patron Macky Sall taxaw wax ci Ousmane Sonko Macky Sall ay sëriñam ay buxaabaam woo nañ ko ba mu ñëw ñu ne ko su fekkee bëgg nga yàgg ci kaw suuf bëgg nga yàgg ci réew mi Ousmane Sonko bu ko boole ci say discours Macky Sall mën ngeen ko dégg mu wax lu nekk mais du ngeen dégg mukk Macky Sall tëb di dal ci kaw Ousmane Sonko Macky Sall <laughs> du ngeen ko dégg mukk Macky Sall du ngeen gis mukk mu taxaw naan usmaan Sonko lii wala Ousmane Sonko lële parce que wax nañ ko ko léegi apprenti Macky Sall yi nga xam ne xamuñ fu ñuy taxaw bëgg xaalis a leen jàpp ak bëgg gis leen ma ak bëgg àdduna bëgg buzz tax ñoom suñ jëlee seen micro rek mais Ousmane Sonko du ngeen amee ci moom bës de képp ku dal ci kawam rek yàlla wan la mbugalam yéen xam ngeen ci dara ana ñu loon wax ci Ousmane Sonko est que déggati ngeen kenn ku waxati ci moom ñoom ñëpp lem nañ seen geen ñu toog ci laaj leen dem leen dem leen ngeen xool leen dem leen ngeen xool leen ñoom ñëpp lem nañ seen geen ñu toog ci parce que képp ku wax ci Ousmane Sonko yàlla wan la boppam parce que du tooñkat te nit ku set la te xol bu set la am gi nga boroom xol bu set soo ko tooñee billaahi yàlla wan la boppam parce que ñooñu ay alalu yàlla la ñuy nekk kun ñu bàyyi xel ci président Ousmane Sonko bu baax ñun Sénégalais ñi xam ne alalu yàlla la lu ñu yàlla jox la nañ ko fonk respecté ko Ousmane Sonko ku ñu war a respecté la dañ ko war a jox cër du politicien bu ñu war a manqué da respect dañ ko war a jox cër war a ko respecté parce que daf ñu respecté daf ñu bëgg daf ñuy xeexal day joxe bakkanam ngir ñun waaw ana activiste yi ana activiste yu fi doon saaga Ousmane Sonko activiste yi nga xam ne dañ laan génn ci internet bi di saaga Ousmane Sonko est-ce que déggati nga leen dootuñ saaga Ousmane Sonko de ana est-ce que déggati nga leen ñu doon fëgg seen dënn di yuuxu di saaga Ousmane Sonko gars yi di leen commentaire naa leen waaw sebon dem leen ngeen laaj leen ndax da ngeen leen déggati déggatoo leen de gëj na ñoo génn saaga Ousmane Sonko de xam nga tooñ moo baaxul. tooñ moo baaxul sooy tooñ da ngay assumer say responsabilité soo demee bay taxaw di tooñ nit bàyyil xel na war nga dëgg sa tànk fu dëgër te tooñ du gàllaaj te tooñ kenn mënul am gàllaajam kenn mënul am gàllaaju tooñ loolu dama koy bàyyiloo xel activiste yi moo tax ma def ci live bii pour ñu moytandiku président Ousmane Sonko mi nga xam ne nii yërmande kese la dafa ñëw rek pour dimbale pour dimbale sénégalais yi képp ku jóg di dal ci kawam du yaag moom yéen a am affaire yaag sa borom yéen a am affaire parce que xam moo tax parce que gis nga nit kuy dëggal ci kaw suuf yàlla du ko neenal mukk te yàlla buggul kenn ku ko laal kooku day nekk koo xam ne yàlla moo koy aaral boppam Ousmane Sonko yàlla moo koy aaral boppam kun bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax a baax parce que lu am solo la waaw tey jii nii ah ñun suñ génnee nekk ay politiciens di wax ñun suñ génnee nekk ay activistes suñ génnee nekk ay patriotes ah kan moo tax ñi nekk ko yàlla ak président Ousmane Sonko moo tax ñi nekk ko ñun bu njëkk liñ la loon ñu gëmloo mooy suñ naree wax ci politique suñu yaay dañuy woo naan ñu moytu leen politique bàyyi leen politique bu leen wax ci réew mi bu leen wax ci réew parce que loolu la ñu gëmloo woon defoon ko suñu biir bopp yi ñuy jàpp ne loolu mooy dëgg mais président Ousmane Sonko ba mu ñëwee daf ñu ne bu leen wuccee réew mi ñenn. ñi jàpp na ñoom rek ñoo moom réew mi génn leen yéen ñëpp ku ci nekk am nga xalaat ci réew mi nga taxaw nga wax ko parce que yow sénégalais bi kenn warul la jiitu ci defar Sénégal yow sénégalais bi kenn warul la jiitu ci nga gis lu yàqu Sénégal nga taxaw dénoncé ko waaw loolu ñu ngi ko gëmee ñu ngi ko xamee ci président Ousmane Sonko te loolu moo ñu def ñun tey ñu nekk patriote ñun Ousmane Sonko moo tax ñiy génn di wax nekk ay patriote parce que ñun dañoo geddoon politique politique ñun ñëpp a ko doon man man dama man dama doon xëy di saaga ndey politiciens yi vingt quatre heures sur vingt quatre parce que mosuma leen a gëm dama loon xeex sama xeex gëm sama bopp mais ba ma demee ba xam ne solution am na damaa xam ne dëgg-dëgg kii solution la ñi ànd ak moom jëm koo xeexal pour mu yor Sénégal ñi jéem a dimbale doomu Sénégal yi nga xam ne dañ leen fàtte ak doomu sénégalais yi nga xam ne injustice lañ teg seen kaw ak doomu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci lalu hôpital yi mënuñoo faju ñu war ci xeex pour loolu jeex biir Sénégal si li may ñëwaat mooy dafa am beneen vidéo boo xam ne mu ngi daw ci internet yi mu ngi daw fu nekk ci biir Facebook bi muy benn waay bi nga xam ne mu ngi def benn vidéo di expliquer seexam seexa ndooram dafa def choc def accident mu jël ko yóbbu ko ci hôpital ba mu ko yóbboo docteur